nee na mi ngi sant Sénégal gépp parce que président Wally nekkatul doomi coon ak ajaratu ki ne képp doomi Sénégal yëpp la ñi koy ñaanal di ko bégee di ko teral te jëmbi yàlla rek tax nee na bari nañu lool nee na mi ngi leen di sant ñoom ñëpp nee na nee na daanaka moom def ci dara lépp lu war ci bis bi rek doomi aadama yee ko def te moom gis na ko nee na na leen bu baax a baax di sant sénégalais yi ñoom gis nañ ko ci réseaux sociaux yi am na contentement bu rëy di sant yàlla nee na sat ngay yàlla bu baax ci ñi bokkal deret rawa rawatina ay rakkam Mouhamed Seck nga xam ne mooy imaamu kër gi mooy sunu staas président nee na moo ko gën fuuf nee na moo gën fuuf nee gënaat fuuf di rakkam di maga Aliou Seck mi ngi gërëm sunu yaay muumi sunu rakk bintu Aïcha Rasoul Babacar di jëm ci sunu taaw baay Alaaji Lamin Naar Seck ak Daba Seck ak képp koo xam ne bokk ak nag yow deret rek président Waly Ballago Seck nee na mi ngi lay set mi ngi lay gërëm nee na tudd bi nag ku ko waxul mooy daa bëgg a sonal kenn ndax bu jëloon téléphone am tàmbali koo yëgle di woon nit ñi nee na du taxaw. ndax ñëpp ay nitam lañu képp ku ko yëgul rek mi ngi lay tuubal di la wax ne da ko bëggee woon nii rek ndax bëgg te solul kenn ndax way juróom bu góor ba alaaji coot sekk nii rek la ko daan defee nee na moom mës ta xew te vraiment nee na confortable ci woote ab xew jekkiwu ko jekkiwu ko ndax noonu la ko bàyyam ju baax ji yare nee na di bég lool ci waa Ramadaan di leen sant di leen gërëm nee na su waxee Ramadaan nag wax na ñëpp du lim parce que moom yàlla daa dogal ñi muy àndal ñëpp a ko mag nee na ñim ci mag matul ñaar waaye ñëpp ku ci nekk rek jox na ko cër boo xam ni yaay sama patron weesu na patron weesu na mag nee na vraiment loolu nag mënu koo qualifier sant na ñëpp bëgguta a téye bëggul sonal kenn di gërëm soxnaam su baax si la première dame soxna ay dara jigéen ju mën góor nee moo ko jural Seydina Mohamed jural ko Ndeela Waali bi mu tuddee mbagam jigéen àddina ba nga xamante ne ñoom ñaar bokk seen baay allah gi jot sekk nee tey nag mu jural ko waajuram bu tedd bu baax bi ajarat nday faatu jaaga nee na moo am lu riis di doomi jaaga di bàyyi jaaga waaye loolu foor na waay waaye loolu for na waay président nee na mi ci am mbégte bu rëy di ñaan di ko foqati mhm. sëriñ Fallou Mbacke mi ngi fi bu limee day juum Toumani Ndiaye Ndiogu Mbaye Moustapha yàllay baal Ndiogu xaritam Amady Badiane magam nee na yoonam nee na Amady Badiane magam waaye yoonam nee di gërëm Ousmane Thiam xaritam Serigne Youssou Fall mu Chérif Abdourahmane Fall Tilala mi ngi fi teew nee na kon a ngi teew tey jërëjëf nee na nag mi ngi gërëm monsieur le ministre porte parole Omaro di gërëm presse bépp di ñaan ñaan gii ñu ñaan na ko Mouhamed mu sell mi nee na xam na ko ñoo bokk ndeeg baay su nee mu sell mi rek xam na fi mu ko teg mi ngi ñaan Mouhamed Seck ñaan jox oustaz mu tëj xale bii nga xam ni yàlla dogal na mu jaar ci moom yàlla na ko yàlla sàmm sàmm ay mbagam sàmm askanam yàlla na am njëriñ yàlla doon jullit yàlla doon murit saadix doon soppay Moustapha sallallahu alayhi wa sallam na ñu fekkee njëriñam mu dund taam ndeeg bàyyi ak bépp xale bu judd ci bis bii tey yàlla na ñëpp am jàmm jërëjëf président son excellence. nee na bi ma ànd ak ba léegi jugu fi nee ba ni mu dugalee waajuram bu baax bi ci biir bàmmeel jugu fi mi ngi fi rek toog nee na te mosu koo gis këram moom Waly nee na xamul soxlaam comme mi ngi koy gërëm père Jim jërëjëf nee na bi muy xàmmee ngay ànd ak su waajuram bu góor ba alaaj cot sek mosoo fee jug ba tey jii mosoo xaddi nee na di gërëm suñu baay Adama Sarr léegi rek lay yóbbante nit ci moom ngërëm na xaaru ci dara sonalu ko ci dara nee na chef d'orchestre Papis Ndiaye jërëjëf waaye nee na tubarkàlla le premier ministre de la république jàmm réew mi njaga oro moom mi nga xamante ne mooy manager Wally mi ngi koy sant sant na ko démb santaat nga ko tey ndax bi ngeen ànd yàlla dogal mu jaar ci waajuram bu jigéen sa yaay moo ko ne waali day waa jooju ñuy wax njagooro sopp naa ko lool su ma sañoon ngeen ànd liggéey woo Mari Badiane ne wool ma njaga nee na ajaratu ki Juuf mi waajuram bu jigéen moo indi Ndiaga Waro ci groupe bi ne ko ménage sama doom kon Ajaratu Kiné Diouf moo dénk doomam Ndiaga Waro nee kon nag moom Ndiaga pik ak peel ànd à vie yàlla yéex yaa gore président waaw góor jërëjëf Mohamed tëjal naaj naaj wi tàng na naaj wi tàng na tëggal ñu tëj. bay bay may ziare sek te ku ne xam na ne xabru Baye Thione dañ koy tëj génn na àdduna ba ba bis boobu ziyaare jiwuma ko ma génn sama kër di ko ziyaare ji di ñaan yàlla ngir ziyaare ko te moo ma taxoon a jóg te xam naa ni xabru bi dañ koy tëj te man ci biir laa bëgg a dugg bi ma ñëwee ba ca buntu armeeru Yoff damaa taxaw tourné yam ci moom mi Mouhamed Seck ma xam ni nag kon li waral lii te man ma amoon yéene ziyaare ji Baye Thione Seck ma ñëw fekk Mouhamed ci yoon wuy dem pour ibbi xabru ba kon Baye Thione Seck am na lu yàlla def ci moom waaye Mouhamed doomam ji am na lu ko yàlla séddee dama koy dëggal ngir moom li mu wax ñun li ñuy dund ci diine li dal Wally Seck tey ci showbiz bi ci jamono bu ko daloon ci diine ñu jiiñ la waliyu te doo nitu kese man maa ko wax Baye Kébé bu yeboo nañ la xool nii rek wasalaam. mbay si mii ngay gis ni bu sama 100 francs bu muy lekk bu weesoo liggéey dara. jàmbaar la naw naa ko ci bëgg ndayam góorgóorlu ku fay rakam ñeme dépense ñeme da tooñ ak dignité bay si ñàkkul fayda bay lambar lewul lambar lewul demul fenn dem kërti non non non donc c'est un homme valeur tey jot na ma wax sénégalais yi kan mooy mbay si mbay yàlla na nga gudd fan daan gii nag na xam ni bàyyi nga fi cër nga fi ah, ah, ah, cousin nga waaye nag am nga fi cër billahi wallahi wa taalahi ñeme naa laa dénk Ramadaan taxaw ne di la seetaan te xam naa ne doo ko yàq di nga defar yàlla na gudd fan waaw la loolu jot na wax daf ma war waaw mais monsieur monsieur le ministre def na li ko war parce que hmm. gouvernement noonu lay doxee hmm. eh bien que su su su su su su bés jotee. ku nekk fi nga war a jaar di nga fa jaar. parce que ku ci nekk ñoom yaa ngi ca wàllaa ba nga war a ne. yaa ngi gis sa bopp di nga ko war a gisee. kon monsieur le ministre. merci beaucoup. jërëjëf président merci beaucoup. nga sa waajur bu jigéen di maman Kine nga waaw naa contentement parce que man euh, su ma amoon cent doom yu góor. cent doom yu góor. su ma ko amoon ñëpp yeneen ci biir ñëpp rasulilah la du papa du nijaay du tonton du xarit du kenn du du dama xeeb kenn de waaye sam papa moo ñu yore moom lu mu jur yeneen bi lu man maa jëlaat waali Ibrahima waali donc man lépp lu ma jur ci sama kattan bu dee góor yonent bi lay tudd yàlla dogal nag muy doom bu jigéen ma xam ne nag am naa chance yàlla may na ma chance ma tuddee ko sama yaay. macha allah message sama jabar raw raw na dalin koor yow. d'accord yaa may tooñ yow. madame raw na foofu xale bu yaru la. wax na leen sama doom la sama jabar la waaye suma doom la may bàyyam. Hmm. may ah, bu yaru la xale bu mën muñ la muñ la fi lu ne ah moo tax nag dina fi lu ne waaw parce que am na rek yaa fuusa te doful nag jantal booy la jël baax <laughs> na jërëjëf jërëjëf merci jërëjëf jërëjëf merci merci gars yi merci alors ah man xam nga man fu ne la génn ma fii am naa contentement tey moom tey moom jaaga rek a xew. mais xam naa buy yi weesoo. ah non attention. Mm-hmm. attention. Mm-hmm. xam naa fii suba dina am luy dina am puccat rek lu lu ñu fooyee noonu rek. comme lan mais c' est pas moi. waaw c' est pas moi. Euh, dafa jëm ci koo xamante ni je l'estime beaucoup un jeune sénégalais bu ma bëgg estimer ko trop. di ngeen ko gis bientôt. comme ah. jox ñu jox ñu mais mi may. surprise bi dina ko surprise surprise surprise surprise surprise surprise